xamee ñëw na nag mu lal darsu bi pour ñu tënk di jàngale waaye di jëli xam-xamam boo gisee yaram efficace ci xaaj Malick Serigne Hadji Touré ko jàpp nee na nekk nag moom juróom-ñeenti at musuma gis mu tardé jàkk jàkk loolu yombul de ci activité koo xam ne yaa ngi jàngale yaa ngi recevoir yaa ngi wir lu ne yaa def seen wéral nee na papaam dañu ko dañ ko daan fekk mu toog di jàngale tukulóor yeeg wolof yeeg ñëpp naar yi dana wolof yi ku ñëw mu ne la foo teg yaa ngi sa téere de foo teg nga wax mu tëralal foo teg nga wax mu tëralal tukulóor yi ñoom mu ne mbaada daal di commencé waxtaan naar yi dugg mu ne kayfal xaal waxtaan ak ñoom caxara làkk yooyu yëpp mu boole ko ci boppam di wax ak ñoom ci benn jotaay nee na ànd ak loolu yëpp kurus gaa ngay dal ma ngay wirdi de mi ngi wirdi mi ngi jàngale mi ngi recevoir ne ko ne ko ah si yi nga bëgg a boole dina métti di bëgg di recevoir di jàngale di wir di mu ne ah ah loolu na métti na boo xam ne daf ñuy wan ne lu ñu war a bàyyi moom da daan ci jëf-jëf taalibe yi topp dem ca mbalaanu wasifa ya dem ca xadara ya ne daara ja bu julli jullisee fajar bu ñëw wasifa jël kurusam yëggale raatam ba yor yor tari bi sis baara leen di yëkkati ci jataay bu mu jógee ci jataay ba kum ci continué waat takku saana leen di yëkkati bu ci nit ñu tàllalaat mbalaat wasifa buñ paree ñu zikkar julligee mu toog waxtaan su waxtaanee ba noppi bàyyi ñëpp ñu delluwaat ci ñu dem tey waaw am ñoo xam ne duru rek waaw dégg nga mu waxtaan ma abdou ba mun a gaas yi bi ko réer yëpp dañ koo ji lan laa doon wax dafa génn xaala laa woon xaala rasul gaas yi génn ko na ko kon kay bul wax ci sa waxtaan bi doon waxi yàlla ak yow dama xawoon a sévère tuuti na léegi la affaire yi neex ñi rek ay xamul woon nekk dara voilà parce que dafa amoon fayda ci li mu doon def amoon fayda bu ko defee nee na loolu la dëkkee woon nag ñëpp xamee ci moom mën na julli ñeme naafila suñu cheikh nee na mag ñi dañu daan wax ne est ce que Maodo dina nelaw parce que bëccëg bi lii lay yëndoog ñoom bu ñu jullee gee mu waar leen ba ñu tëdd ñu dem tëdd ñu ma nga taalam lampam benn mi ngi naafila bu naafilaa ba yëg ñu dégg muy wirde tocc tocc tocc bu yàggee ñu gis muy bind nee na ba ñu tënnu nelaw lu ñu teel a yeewu dañ koy fekkaat mu to bu dul naafila ma ngay bind baa muy wir nee ñu ne Maodo du nelaw du nelaw kii du nit nee na ñu fexe rek ba laaj ko ba dugg ñu ne dañu doon laajte ndax yow di nga nelaw mu jéem mu ne nelaw ba tey nit ku dul nelaw waaye du ma ko sàkk nag ñooñu dañu xam ne lu nekk dafa am àq ci yow da ngay dox mission heure bu yàlla yebalee nelaw mu war a dox ci mission bi nga bàyyi ku mu dox mission bi mu ñibbi nga continué waat mais loolu soxlawul lalab lal sa bi xam naa léegi nee na moom jarul lalab lal di ko xaar bu ko fekkoon muy bindi bu nee nii ba mu dañ mu sikki dem yoonam pare nag yeesal daal ba mu continué waaye nag waaw mais nag loolu tamit foog nga am tuuti force parce am na ñoo xam ne bu ñu nelawoon une heure de temps sax dañuy amaat force bu ñu perte dañ koy amaat am ñoo xam ne bu ñu de temps. nelaw trente minutes rek mën naa la mën ko toogaat minutes quinze minutes quinze minutes mën ko doogaram mos mbir ma man day na Cheikh ak malik doon wax la ko moy ke lepp sahaba yi teg seen tànk ma tek fa sama parce que missionnaire la te loolu la gëmloo ay talibé motax daw daaw def lo ay karar dafa bëgg ñu ñeme jaamu yàlla ñeme sikka ñeme jub ñeme du nekk ah waaw du dundam nag gisul sa waaw du dundam gisul donte xilaas bi ñuy wax ne nag bi mu koy bind gisul mom loolu bokk ci bi muy bind xilaas mi ngi xool jahran da jot ko ak Kumba Wule am na xisakat yu koy wax nag gis naa sax Oustaz Boury Siyaan di ko wax mais loolu moom amul bi muy bind xilaas daal dara rëggatu ko mi ngi xoole te man loolu Serigne Mbaye Abdou moomu ko parce que man dama ko dégg rek affaire bi xaw ma soxe daal neexuma quoi parce que voilà ak ñu mu toll mu jaral ma ma dem ba teewoon jël audience ci Serigne Mbaye ma laaj ko ne ba dama dégg ñu ne seen xaaj Malick Gueye bi muy bind xilaas bi dafa seen ma xam daa am ne loolu nag bokk ci gars yi koy xorom rek yéen ñu mucc yi ay kifaayatu raaxe benn ak kif amul mun kilim ci yàgg yow yow fekk bët yi sëgg mais eh, xilaat bi ñu koy taalif bët yi sëggul day eh, ak sax waaw ak bii nag fekk na bët yi sëgg na waaye li bët yi di sëgg yëpp ña ko doon bind moo leen di dicté fa mu ne ubbi téere sàngam paas sàngam nga ubbi sëriñ Abdu ne man ñi ko doon wër ñoom bàyyi rawaat amati léeg-léeg mu wër wër wër ba sonn ni gisuñu maxalal mu ne leen indi téere bi ma xool ñu dox ko mu téye téere bi ne nii ab biir ubbi da ko xoolal fii mu xool muy foofu kooku sëriñ maxal nee na ñu ne ko ci Malick tubaab bi mën nañu faj bët dañu bëggoon nga doxantu ñu dem jéem a dagg suñu àq ci yow pour bët yi delloo si mu ne yàlla te yàlla te yàlla teggil ma bàkkaaru bët ngeen bëgg ma caa delloo te loolu kooku lu muy doyee ci bunt nga xam ne yow la ca ginnaaw tax taxaraa da koy xool yàlla ñu yàlla moom yàlla nañ bokk ci njabootam yàlla nañ bokk ci njabootam. Cheikh Hadji Malick. mag mu baax mag mu baax. ku yiw ku baax ku yiw ku bëri xam-xam ku baax ku yiw ku bëri xam ku laabiir lool Cheikhul Hadji Malick tabe lool te mën a jéggale te di jéllale daan dimbali ñamu tane te dëkkoon ak ñoom Cheikhul Hadji Malick daan rafetal ay dëkkandooram kem kàttanam ci lu nëbb ak lu feeñ bare na ñu mu dëkkaloo nag ñoo xam ne yàlla nattoo woon na leen ñu xaw gàtt wërsëg da daan yëkkati dundam di leen jox ñuy dundee te ñenn ñi sax duñu ko xam yenn yi mu koy def di nëbbut ba mu jaral ko daan na woon nit ba mu yëg mu jox ko mbir ne ko demal jox kële te kooku du gis ne moo jox kii ngir bëgg koo def te yàlla tax sëriñ bay nee dëkk naa nit di ko defal teraanga te terewul nit ki di ko sikk te keroog la koy gën a defal ay teraanga sëriñ bay nee di lay wan ne defal yàlla ak a jafe nee na toog nañu maam Mansour Cheikhul Xaaji Malick moo ko yaral boppam nee na mu yëkkati dund bu bari jox ko ne ko fexeel ba bu ma ci feeñ nga ut koo ma ko joxal mu joxal ma ko sama dëkkandoo bee parce que nit ñaare léegi-léeg am na ñoo xam ne soo bëree loo leen di jox bu yàggee dañ lay rus nee na muy def noonu rek di ko def di ko def ba benn bés yàlla nattu ko këram lakk te ne Cheikhul Hadj Malick dajale dund lu jëm ci dugub ak lu koy defar ak yére defaat na mu daan def fexe ba bu mu ko gis te ko fexeel nga yóbbul leen ko parce que soxla nañ ko te bu ma ci feeñ nee na ñu dem yippil leen yére ya yére yi bëri lool lu ne ñu wàcce leen ci dund ci dugub ci ceeb ci lu ne nee na mu dellu si ne yóbbu naa nee na ñu teg ay fan fi ñu toog si si suufu sàkket wi ci buntu kër gi nee na mu dégg ñu koy jëw dégg ñu koy jëw mu ne ko nee naay ku baax la fi nee nañ moo fi daq jàng nee nañ moo fi ëpp xam-xam nee nañ ku baax la te da koy mbubboo rek bi sama kër lakkee ba tey ku ne ñëw na lu ne nit defal na ma ko ba mu des moom kenn jaralu ko dara nee na maam Mansour bëgg a jóg mu ne ko toogal bul def noonu dama laa bëgg a jàngal àddina nee na lii bu yàlla taxul woon ngay def fii la def bi di yem xam nga ku mel noonu buy jëflanteeg doomu aadama du nit ki lay xoolati waaye yàlla lay xool ci moom Cheikhul Xaaji Maalik loolu la ko yàlla dimbalee woon daan na jël ay yéreem yu ma fonk di ko jox ko mu yaakaar ni néew néewle nga ba amuloo loo sol ngir bëgg nga suturloo di dajale ay ñam di joxe néew ju doole daan joxe bay joxe sax dépense këram te ku mu yëg ne sa xam-xam ci wàllu diine soriwul dana ko jaral lu nekk pour nga xam mission bi gënoon a rëy ci mission yi moo nekkoon jàngale jàngale loolu lu mu gënoon a bëgg ci àddina mooy jàngale parce que temps wam yëpp daanaka ci jàngale la ko defoon